enregistré nga wax nga bàyyi fi waaw incha allah ku yàlla na ma taxee dana déglu loolu ñu ngi koy jaal ñëpp njabootam gi dafa yaatu nag waxuma ñu jur waaye njabootam gi commencé baab mu doon wax léegi dafa yaatu waaw parce que ñu ma woo ñëpp ne ma ñàkk naa sama papa taxaw ma leen bëri na ñu ngi koy jaal ñëpp di wax ñàkk nañ jullit bu baax waaye ñàkk nañ taalibe bu sell macha allah ku yéenoon ñëpp jàmm ba xam ne rayoon na bakkanam te eh, dundam yëpp mooy fexe nit ñi bu topp seen bakkan rek loolu moo nekkoon ñu ngi sant yàlla di gërëm dogal yu baax di ko jaal ñëpp di wax alhamdulilah rabbi